ci yenn kaay yi El Hadji Ousseynou Ndiaye Elage waaw gannaaw nag élection ñu doon na ci résultat yi waaw xamal ne gannaaw bi di ñu xamal na gaay yi ku nekk place na bu Sénégal di ci 57 pour cent yéen nañu teey

bi ñi ngi ñaaw lu baax lu ne mel Maître Assane Diomba Diaye ak ñi mu àndal naa laa da xam le ne loolee daanaka bokk na ci li nga xam ne day rey démocratie gi Sénégal ndax ñi nga xam ne daal seen ab xam-xam màcc na loolu jëm ci fànn gu ni mel te itam mu nekk liggéey boo xam ne ñoom ñoo ko war a fës ñenn ñi di yàkkamti di génne résultat loolee baaxul ci réewum Sénégal laax loolee baaxul ci réewum Sénégal maanaam sax usurpation de fonction yàkkamti ba jël nit ki place am place bi nga xam ne daal moom la war a liggéey nga yàkkamti di ko ca jamono joojee Le Soleil yéeni kaay du ñu xamale nag tendance yi nga xam ne daal jot naa génn daanaka Macky Sall gagné na fu bari yéeni kaay bi du ñu xamal ne dàppal géejawaay Macky Sall daanaka am na fa ndam lu yaatu dee Rufisque am na fa ndam lu yaatu waaye nag bu dee ñi nga xam ne nag ñoo nekkee ci kujje gi ne Sud Quotidien di xamal ne Idrissa Seck ndaamal Kajoor jamono ji nag fësal na ne Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar moom Idrissa Seck moom moo fa teg tànk bu dee Ziguinchor Ousmane Sonko moom Ousmane Sonko kaddu yi nga xam ne rek da ko yëkkati woon di ko jëmale ci 2STV ak TFM waaw mu nekk nag ay kaddu yi nga xam ne ko jëmale ko ci yenn ci taskatu xibaar yi nga xam ne nag ñoo nekkee ci Sénégal ne ma SYNPICS muy kuréel gi nga xam ne moo ëmb taskatu xibaar ñoom nag boolu nañu bu baax lu ni mel muy kàddu yi nga xam ne itam gis naa beneen combat muy diggante Mame Fatou Kébé ak Cheikhouna gannaaw tëkkoonte bi yàgg na lool Baye Fall tëggal lii boobaa ñu xool ba xam njëloo ndig lay doon wala kalfasting maanaam wàcce nank wala sax ñu falaxe ak lu mën di xew daal mën maa ngoog ba bet beneen